bisimilah yow itam xam nga ndakaaru xam biir kër yi macha allah. Euh, sujet bu am solo la euh, quotidien wu sénégalais yi la parce que euh, tey jànk mooy li gën a naqari am ci Dakar. te muy dëgg. parce que euh, jamono bi foofu la toll tey euh, jànk yi bu ñu demee tabaski pour ñu ñëwaat c'est tout un problème. Mm-hmm. boole ceeg chaque jour dinañ la tàggu xew chaque jour dinañ la yëgal dëj. te day nekk ay affaires yoo xamante ne yow doo am preuve que ne dañu dem mais mënoo leen ko bañal parce que danga naan bu doon yow la dangay dem. donc mënoo leen tere foog nga bàyyi leen ñu dem maintenant euh, am na ñu nga xamante ne jànk yoo xamante ne am na benn traitement bu baax bu ñu leen di defal sax na ma yàlla baal ñëpp ay doomu aadama lañ. mais à la limite duñ ko mérité tellement que dañ lay écœuré euh, dafay bëri déception ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jànk yi ak ñi leen liggéey mais aussi ñii liggéey loo jànk yi foog ñu xam ne ku nekk ci ñun fa nga jëm naan nga fa xam nga man fii ma ñëw nii min daan laa mm. parce que dama nekk ci waawu ay nit di leen liggéeyal ñu may fay yow noonu ma ma mii noonu mm. donc boo xoolee ni man tey même bu fekkee ni ci bureau laay ñëw même bu fekkee ni ci ay studio yu climatisé lay toog am na loo xamante ne bugguma ko parce que bugguma ku bafoué sama dignité donc boo ko xoolewee foofu jànk bi di ñëw sa kër di liggéey si bu nangu itamit ñu bafoué dignité wala yow nga def ko mm-hmm. loolu benn la ñaareel bi mooy jànk yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci kër yi di liggéey si bu ñu nangu kenn gën leen jigéen parce que ñoom mënoon nañu préférer nekk jigéenu trottoir mënoon nañ nekk ci mbedd mais mënoon nañ sàcc mënoon nañ def leneen donc tey boo ñëwee ba nga ne sama xam-xam sa wala sama doole bii kat dama ko bëgg jaay jaay boobu noonu dañ kiy def fulla ak fayda parce que daqaar sa boo ko dee jaay te defoo ci fulla ma ñam dina ko jeexal hmm. donc il faut ku nekk ci ñun nga xam sa yëf euh, euh, sa droit fan la commencé ak lan mooy sa devoir hmm. boo ko defee nit yi dañuy daal di diggoo yi nekk benn euh, mooy àq bi ak yelleef bi hmm. mais Euh, souvent les gens ont tendance à pointer du doigt ñi nga xamante ne ñoom ñoo di bon yi euh, mais man souvent non parce que dama naan euh, maman Eva dakaar bëri na kër yoo xamante ne dañu foog ne jànk jaam la Euh, c'est pas parce que nit ki dafa jóge ci àll ba ñëw sa kër di liggéey si que dafa war a nekk jaam non lu tax bu lekk jotee dañu war a ber jànk yi c'est mm-hmm. pas normal mm-hmm. lan moo tax yow euh, am na ñoo xamante ne ñu ngi liggéey loo jànk xëyuñu gontuñu ñoom mm-hmm. ñu ngi seen kër tëdd xamuñu lu xew ci kër gi parce que jànk même boo ko dee fay danga koy topp xam nga li ma wax. mu doxee mu doxee maanaam mu sa doxin. voilà mu doxee sa mais doo jël liggéey bi yëpp bàyyi euh, bàyyee ko ko yow da ngay tëdd ndox. Mm. ci sa kaw lal ngay tëdd naan diw indil ma ndox. dëgg la café faatu may ma kafe nday defaral ma lii donc tout repose ci bon bi dafay metti boole ko bu sa doom jooyee moom la bu sa jëkkër xiifee moom la. bu sa euh, euh, doom jógee école moom la lépp bëgg reposer ci benn nit wala ñaari nit. c'est problème. ku nekk nit nga amu un moment dangay dangay dangay da ngay da wala nga maar jànk yéen ci kër yi di feebar ñu nee dañoo feebar sax ñu ne dañuy tappale ay nit la ñu lu tax ñun ñu war a feebar te ñoom jànk yi ñu feebar mm-hmm, mm-hmm. loolu beneen problème la jànk yee ngi ci kër yi seen doomu patron yi di leen teg façon mbugal bu nekk mm-hmm. Papa Bane jànk yee ngi ci kër yi ñu leen di violer personne n'en parle c'est compliqué jànk yee ngi ci kër yi ñu leen di jiiñ ay sàcc yoo xamante ne defuñu ko ak yeneen ak yeneen donc je pense que déjà foog ñun ci suñu bopp ñu teg suñu jànk yi ci suñu place bu ñu bëggee nekk bi neex jànk yi itamit encore une fois ñu ànd ak seen ngor parce que ñàkk bu mu tax nit ki war la yëpp ñàkk bu mu tax yow nga war a goree di ñàkk bu mu tax nga bëgg alalu kenn man dem naa kër goo xamante ne jànq bi fa nekk xale yi ci kër gi yëpp ci loxoom lañu màggee def na fa plus de 30 ans bu ñu amee or moom lañ koy dénk bu ñu amee jamaa moom lañ koy dénk bu ñu amee xaalis lu mu mën a toll moom lañ koy dénk kooku tey je pense que ñooñu ñooy exemple jànq yi ñu war a wane tey nag gouvernante ñoo nga xam ñoom ñoo di gouvernante yi tey jànq a doy waar qu'on le veuille ou bu minime la mais on met beaucoup plus la lumière ci jànk yu nga xamante ne ñoom ñoo doy waar ba nga xamante ne jànk yu baax yi tey kenn mënatu leen teg ci ñoom bët ñun di man mii di wax ak yow personnellement am naa benn nañ benn bon boo xamante ne suñu kër mm-hmm. ça fait des années mu ngi commencé yàgg ak ñun à la limite tey ñun ci suñu famille la bokk mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen am nañ ay jànk yoo xam ne liggéey nañ ci kër gi ba bàyyi ba tey dañuy ñëw ci kër yi seet ñu sama jànk bi sàcc na ma sama jànk bi lii moo tax ñooñu rek la ñuy mettre la eh, eh, mais dañuy teg loxo dañuy teg loxo tey ci kan mooy jànk bi ñëw parce que seen ay objectif moo wuute. moo wuute da ngay gis koo xam ne dafa nekk ci difficulté ni nigal ma dem liggéey weer bu dee ñu fay ma ma jox sama wayjur mm. nigal ma dem liggéey weer bu dee ñu fay ma ma fay sama jàng nigal ma dem liggéey weer bu dee ñu fay ma ma yor samay doom lu mm. dëgg mais nit ngi ñëw ne nigal ma dem liggéey bu ma demee na sama patron bi mel naa ko mel loolu ta waa très bien man pour man problème bi mooy ca njalbeen kan mooy kii ñëw uti liggéey mm. que la ka tax a jóg lan la. Oh. ndax lu réel la lu nekk fii. wala moom gis na xale yi am nu ñu mel architecture ba dee. Oh. mu ne nigal ma dem def ni ñoom. Oh. ma dem Sadio mu baax mi wax na ko. Mhm. nee na attention moom xam na jànk yi ñu ngi liggéey si mais am na ñoo xam ne jëkkër moo leen tax a jóg. jëkkër moo leen tax a jóg tax a jóg nag bu ci àndul ak ngor macha allah mën na def loo kan xam ne kenn sopp ko. effectivement jigéen ñi tam ñu bañ sàggan c'est important. loolu mooy ah, en fait loolu mooy loolu mooy problème bi mhm. dafa am dose sàggan ci mbir mi ah. papa baan bu doon tey boo wàccee mari day tëdd fi mu tëdd hmm. na jànk bi jox ko mu lekk hmm. jox ko mu naan hmm. say sous-vêtement bi la say yére jànk bi la waaw boo wàcc boo takkee jànk bi nag wàcc nga parce que bu fekkee ni lépp li warloo ak yow sa soxna mënalu la ko jànk bi moo la koy defal jànk bi mat na soxna donc moo tax ma ni day baax jigéen ñi itamit topp seen jànk yi jànk bi dafa war a nekk pour seconder la mais waru fi nekk pour def lépp remplacer la waaw waru la ah, remplacer daf la war a seconder wax gis naa li nga wax ci jànq bi niñ ko war a traité et tout li nga wax lépp soo ko defalee am na yoo xam ne soo lañ ko defalee ah ñu kooku moo lay décevoir. après kooku du nit kon. nit yee yem macha ah, allah nit yee yem voilà c'est ça par exemple da ngay jël jànq bi tëral ko fu baax. Oh. muy ànd ak say doom. loo defal say doom defal leen ko di leen toppatoo comme ni ngay toppatoo sa bopp. ni ngay toppatoo sa rakku jig bu rakk bu jigéen bi ci kër gi. xëy suba mu wàcc sa liggéey ni ngay toppatoo sa doom yi ci biir kër gi. ak kuñ la su fekkoon tey ji day ñëw. war a bàyyi liggéey bi sax ñëw woo la. Oh. ne la ah man kat nangam ak nangam. ngeen mm. waxtaan.